a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim en mbokki gambia mbokki senegambia mbokki aduna bi yeb ku nekka manga la nuyu sa tur ak sa santa di fi def si benna video jemale ko si mamadou sabali ak aboubacar diawara ñu gën koo xamee si docteur Aboubacar Jawara ak commando Mamadou Sabali Baba la commando tey internet bi foog naa tàng na jër si Aboubacar Jawara dafa samoon Mamadou Sabali si code bi samoon bi nag gis nañ ci ñu bind ci ay millions yu bari xawma juróom ñetti million la ak lu teg xawma juróom ñetti million la um rek waaye foog naa ne daal si lu ma gis juróom ñetti million la Aboubacar Jawara mu ne according to lu ma read si online newspaper si ñu ne mu bu saabali def si moom dama leen a wax nag man suma xalaat kees bu difficile mu ngi ñëw ubbi si kees boo xam ne ni mag ñi jóg ñu dem ñu wax ci ñu fay ko moo gën ñu seetaan kees bi bem dem be koot kees bi su demee ba àgga si koot bi ba bañ commencé kees bi nu ko nit ñi foogee du demee noonu dégg la nag doomi Gambian bu nekk am nga right sa moroomi Gambian su la tooñee nga yóbbu ko ci yoon waaye nag <clears throat> nit ku ne it am nga sax xel wala sax xelaat lépp lu la jaaxal nga gis ko wala loo bugga waxte mu ànd ak yoon nga wax ko waaye lu ma leen a analysal ci suma gis-gis bu gàtt kees bu difficile mooy ñëw start si nii suma waxee kees bu difficile mooy ñëw commencé kees bi du demee nuñ ko foogee de nuñ ko foogee kees bi du ko demee kees bi lu ne na si lu nekka xëj na ci kees bi diggante Mamadou Sabali ak Aboubacar Jawara parce ñoom ñaar ñi xarit lañ woon ci beginning bi lu xew nag ba weñ seben seen diggante kenn xamut waaye xarit lañ woon ci beginning bi dañ doon demalante di ñëwalante tey nak gaay dañ fola ab dañ fola pat gis nañ <clears throat> mamadou sabali daf de def ay audio ci forumam bi daf de wax aboubakar jawara yit suma fàttewut looyam bi bindoon na fi momadou sabali wala su fekkee dama fàtte ngeen rectifyin ma bugoon nañoo jël legal action ci momadou sabali bu yàggat Aboubacar Jawara nag man Baro lii moo tax Baro moo ma gënal ñu bari ci réew mi ci benn side Adama Baro luñ ko yekkut ci réew mi amut man de lu ma déggul ñu wax fi Adama Baro ci àdduna mooy ne Adama Baro duma nga wala sa yaay duma la loolu re laa déggul ñu wax ko Adama Baro waaye nit ku démocrate la nit ku mun a tolérer la gis ngeen sidi njaay bi ngeen a gis ni sidi njaay koko gën a nekk démocrate it gisuma ko sidi njaay lu nekka nit ñi yekka nañ ko ko lu nekka nit ñi wax nañ ko sidi njaay waaye gestuwut waxun hu waxut ha parce que olof yi dañ dee wax ñu ne benn lam du keleng benn lam ñu ne du keleng xuloo fu mu amee rek tontuwante moo fa am waaye su fekkee kenn mooy xuloo keneen tontuwul xuloo du am Aboubacar Jawara man su fekkee man la advice bu ma am si yow mooy ne number one danga war a xam ne nii yow yaa ngi amee alali Gambian si su ma waxee yaa ngi amee alali Gambian si Gambia government xëj na jox nañ la contrat xaw ma nag contrat bo sayen ak ñoom lan la xaw ma naka lañ la joxee contrat bi waaye yaa ngi def ay ay sand mining ay sand mining ci réewi Gambia bi su ma ne sand mining yi mooy yaa ngi tibu fii ay suuf yoo xam ne nii ay risol ci réew mi la nguur gi nag ñoom ñoo la ko facilitétal parce que su la nguur gi facilitétalut doodem nga tibbu suufi réew mi di ko jël di ko jaayeeji feneen wala di jëriñoo loo xam ne ni réew mi ñoo ko moom ku boot bukki nag xaj baw la ku boot bukki xaj baw la foog naa ne nii su fekkee ne nii momadou saabali ñëw na mu ekati ay baat di ko wax foog naa ne nii xeñ na loo dugal sa loxo si alali réew mi bokk na ci so fekkonne ni nekkulo won amewulo ben aleli rewmi momadou sabali dula tuddu waye nak gannaaw yow ya fas ene toog nga jël aleli rewmi ida si yoon la jaar ida jaarut si yoon waaye ak lum munti deme yaa ngi am ay maynin ay maynin yooy def si biir réew mi fii te réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk njëriñ bu ne si réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk lépp loo xam ne nii si biir suufi Gambien la nekk rek ga doomi Gambien bu ne am na si cër Mamadou Sabally su fekkee mu ngi lay adresse war na laa adresse respectfully li daf la ko war a adressé waaye nag nit ñi it emuñ doom aadama yi emuñ nit ñi seen xaal yi dañ ëppante doole nit ñi nu ñooy waxee bokkut wax su jógee moo tax olof yi dañ dee wax ñu ne wax jafewut waaye déggin bi moo jafe waaye kees bu nga ekati nii ekati nga kees bu diis Aboubacar Jawara xawma ñan ñoo nekk sa advisers yi waaye ekatiloo nañ la kees bu diis su ma ne kees bi nag kees bu diis la waxu ne doo win de waxuma doo win case bi de waxuma loolu waaye kees bi dina am lu bari lu laxasu ci biir case bi case bi ngeen a gis su ngeen oytuwul case bi mooy gën a tànga ji case bu Baboucarr Bob Keita bi su ngeen oytuwul case Momodou saabali ak Aboubacar Jawara bi dina fi isi luñ foogutoon ci biir réew mi suma gis-gis nag lay waxee ak suma xelaat parce que kees bi dafa mel ni NPP ak UDP la moo nekk ji waxuma ne nag NPP ak UDP la parce que Aboubacar Jawara moo samoon Momodou Sabali waaye kees bi dina toll ji si stage boo xam ne dina nekk ji UDP NPP ate xuloo nag moo gën ate xeex ate xuloo moo gën ate xeex te artu balaa mooy weesu artu balaa mooy weesu gis ngeen kees bi ay tiyagas dina si tàkka ji maag leen suma woot si ngeen binda ko kees bi ay dóorante dina ci ami ay sànniwante xeer dina ci ami maag leen suma woot si si kaw loolu laa sukkandeku moo tax ma ne leen kees bu diis moo jóg waxu ma ne dafa diis si kaw Aboubacar Jawara ak looyaam yi waxuma ne dafa diis ci kaw Mamadou saabali waaye kees bu sensitive moo jóg nii tey mag ñi man nag suma ma sagoon su ma sañoon mag ñi jóg ñu dox ci tànk jàmmu bala moo wees artu moo gën àtte xuloo artu moo gën àtte xeex ñay ak gaynde la woon gaynde gi bum tooge mu ñëw duga si biir àlla bi ba fekka ñay fum tëdda ñay bi mu ne ko yow moom yow yaay kan gaynde bi mu ne ko ne xamuloo ma ñay bi mu ne ko déedéet gaynde bi mu ne ko man maa nekka di king of king of di jongul king of di jongul man maa nekka buuri àlla bi ñay bi mu ne ko a ah, mu ne ko waaw ñay bi jóg jël benn garab mu wéeru si garab bi mu yëngal ko yëngalaat ko mu buddi garab bi mu ne mu koy dóor gaynde bi gaynde bi daw mu daw mu ne subhanallah dama foogoon ne àll bi maa fi ëpp doole waaye ndeke am na ku ma ëpp doole si biir àll bi soo kees bi diggante ñay la ak gaynde kuy ñay bi ak kuy gaynde bi nag loolu du suma wax <laughs> loolu du suma wax waaye xam naa ne nii case bu sensitive moo jóg nii te case bii lu cee laxasu dinañ suñ oytuwut suñ si waxut dinañ dem ba dinañ ne suñ si suñ ko yëgoon wax naa leen ko nag ñun dañ dee seetaan man nag si njëlbeen gi laay génn ma wax si njëlbeen gi si laay génn ma wax kees bi nu ko nit ñi foogee du demee ji noonu de wax naa leen ko nag kees bi dina demee su fekkee ne ni proceed na dina dem to the extent dinañ ci dégg ji saaga wante dinañ ci dégg ji xuloo dinañ ci dégg ji xeex dinañ ci dégg gis ay tiyaagaas yu naaw te kees bi lu ne mun na cee laxasu lu nekk mun naay laxasu ji si kees bi maa ngi déglu ji nag UDP lan mooy nekk ñoom tamit seen statement si affaire case bi parce que Mamadou Sabally Mamadou Sabally UDP la Mamadou Sabally baaba la commando la gis ngeen ñu bari commencé nañ di binda waaye nag Aboubacar Jawara danga war a amee thick skin nga move on am na wax yu bari bul ko faale so waxeene ni kujel xeer mu jam la ko di nga dellu gannaaw nga for xeel bi nga delloo ko ko fii nga fanaan jant bi soyee la fi foo bugga àgga doo fa àgga kon ay forantu ay xeer di sànniwante ay xeer di jamante xeer loolu yow warul laay fekka ñaareel bi mooy lu ma la wax business man nga yàgg nga si réew mi fii mamadou saabali tuddul la waaye si man ci suma gis-gis soo gisee Mamadou Sabally mu am di audacity be di la tudda xëj na man ci suma gis-gis yow yaa amee alali réew mi yow lañ contract yenn yenn resources yoo xam ne ñu ngi ci suñ biir suufi Gambia bi yaa ngi koy doxal te képp koo xam ne nii am nga mbiri Gambia nga bañ ñu saboote la foog naa ne daal is better nga delloo alali Gambia nga dellu gannaaw waaw Mamadou sabali lu ma wax su fekkee mu ngi adresse na adresse ku nekk ak respectfully loolu ku nekk entitled na ñu jox la respect buñ la war a jox ba léegi rek doomi Gambien bu nekk it am nga durwaa nga yóbbu nit ku nekk si yoon su fekkee fil nga ne daf la ofen soo filee na daf la ofen mun ngaa dem si yoon waaye nag kiis boo xam ne nii moo jóg jóg leen ngeen wax ci jóg leen ngeen wax ci foofu laa leen di wax nag ma jox leen alaamin beel bi lu ko moy lu ko may lu ko moy kees bi fu moy àgga ji ñu bari dinañ doon wax ne fooguñu woon ne kees bi dina àgga foofu seytaane nag gatandu ko nga fay ko mo gen nga tok di ci xambu wala di ko uppu di boyal muy dem parce que su joge kenn xamut fu moy nekut, te dom aadama lo wax ne suma yon nekut ci lu sa yon nekut ci la sa bakken di dess lu sa yon nekut ci la sa fitna di ci la la fitna di ñowalé kon kees bi concerné Gambian si yépp la Gambian bu nekk am nga right pour nga wax ci sa xelaat waaye nag dox ci jàmm it moo gën toog fii nii ñuy seetaan ñuy seetaan ñun nag dañ bëgg yëfi seetaan bëgg nañ seetaan trop bëgg nañ ko waaye nag ba léegi rek Aboubacar jawaram moom moo samoon man moom laay wax mu delloo tànkam si gannaaw lum nekkee woon depuis bu mu commencé business am bi mu ngi ignore nit yi di ignore ku nekk na continuer igno boobu noonu mu toppatoo soxla yi mu liggéey na igno critique si na igno wax yu ko nit ñi di wax mu continuer liggéeyam bi mu dem mu liggéey man loolu laa am advice bu ma koy jox parce que su nekkul loolu gis nga loo gis si àdduna daf day jeex Mamadou Sabally Demba secretary général la woon Mamadou saabali Demba managing director la woon Daily Observer managing director managing director la won Demba GRTS Mamadou sabali tay mu ngi ni mu ngi ci benen political party fofu la bilaw waye nak yow itamit Demba Aboubacar Jawara Yangi won ci benen place tay so gisee sa bop ci place bi ni gis nga sa bop ci Gambia gis nga sa bop yaangi am doole gis nga sa bop ne yalla la khalis sa raid. la nak waxuma ne amulo raid pour nga ken code waxuma wala nit ñi di ma kóod rong waxuma loolu waaye foog naa Mamadou Sabally lu mu yekka président Baro waaye Baro mu ngi toog rek jàppa morso njaaburam toppatoo soxlaam yi di liggéey Baro musuta tudda Mamadou Sabally Baro daal mu ngi liggéey liggéeyam yi mu ngi toppatoo soxlaam yi moo tax in terms of démocrate wala in terms of nit ku toléré Baro he is very toléré wax naa leen ko si beginning ni vidéo bi Sidi njaay mii ngeen a gis nii Sidi Ndiaye ku toléré la Sidi Ndiaye démocrate la Sidi Ndiaye lu nekk la ko nit ñi di yek lu nekk la nit ñi di wax Sidi Ndiaye waaye Sidi Ndiaye du gestu du tontu du wax Sidi Ndiaye mu ngi topato soxla bi dama bëgg a Jawara nga sét ci président baro nu mel nga mel nonu gis nga nit ñi suñ la fi saxlooyee ay dekk ci sa digi gannaaw gi du soti nit ñi suñ la fi bejeen du soti li yeb lu ñoy netali ji la lii yëpp dafa nekk ji loo xam ne nii ëllëg yi dina ñëwi nañooy rafetal tey te di sóoraale suba kees bii nag wallahi alazim man maa leen ko fooy wallahi billahi tallaahi su fekkee ne nii nit ñi doxuñ si jàmm ba kees bi commencé suñ si doxul jàmm ba kees bi commencé di ngeen toogi ngeen ne alfa waxoon nañu ko magam waxoon naa ko nag moo geen magam amoon na ko nga wax ko nag ñu ci mëna dox jamm ñu jox si jamm ñu fexé nu ñu régler problème bi Sabally ak Aboubacar Jawara ñu jubalé len ku nekk mu dem mu doxi soxlam lool la am lumay wax ci mbir kees bi lu ci kanam raw lu si kanam nak rawul bot te sétana a ci ndaje te suñu sétané dinañ gis te suñu gisé mu amana dina am ñu ci lor amana dina am ñu ci loru parce que kees bii du nekk kees bu light ku leen wax ne kees bii dina nekk kees bu layit mu ngi leen a wax loo xam ne nii lu leen neex la mu ngi leen a wax loo xam ne nii du dëgg kees bii du nekk kees boo xam ne nii easy kees la moo nekk moo wax leen ko de ma jox leen alaamin beel nag part two dina ñëw incha allahu rabbi part dina ñëw su ma ñëwee si partout bi nag Aboubacar Jawara dina am yeneen wax yu ma la wax dina am yeneen jëfin yoo xam ne mu dox si réew mi xaw ma si sa ndigal la mu la demee xaw ma doxee wut si sa ndigal xaw ma waaye dina am ñeneen ñoo xam ne ni nii ñoomi tamit jooytul nañ ma sa mbir dossier boobu mu si sa taabul si suma taabul bi incha allahu rabbi su ma ñëwee partout dinaa la wax boobu noonu. su fekkee yaa joxe ndigal bi dinaa ko wax ci suma vidéo bi soo joxewul ndigal bi dinaa ko jox ci suma vidéo bi am na ñoo xam ne nii nag di dox nañ safa ak marwa si lu may wax noonu ndam demut ndam dikkut dox nañ ci safa ak marwa ndam demut ndam dikkut loolu nag su ma ñëwee si partout bi dinaa ñëw ma leeralal la lan la ak ban xew-xew la ak ñan la te ñooñu tamit ñu ngi toog ñu ngee dégloo te ñooñu it amoon nañ raayit ñu yóbbu la si yoon te yóbbuwuñ la si yoon junj nag doy na borom xel bés boo ma laajee la ñan la dinaa la wax leen ñan la ak lan la ak lu xew waxuma nag yow yaa leen ko defloo waaye ñu ko def si sa tur lañ ko defee si sa tur lañ ko defee ñu def loolu si sa tur lañ ko defee kon nag lañ toog ñun ñëpp ñu dox ci keesi Mamadou Sabally ak docteur Aboubacar Jawara ci digganteem ak babala la ñu dox ci jàmm jàmm rek moo xëj réew mi lu dul jàmm jàmm ko gen mbokk yi nañ leen ñuy wax jàmm di ko dox di ko def di ko digle ndax jàmm moo xam nekk loo xam ne nii fu ñooy dem moo fa gën fuñ jóge moof a gën kon nag nañ leen ñu ñaan jàmm yal nañu yàlla may jàmm sotti ko si réewi Gambia mu saawaan baawaan ndax jàmm rek moo ñu jig asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu.